waa jooju man wax dëgg yàlla dama jàpp ne bu ma dee wax ci moom sax dama koy may doole te man wax dëgg yàlla gisuma njariñ lu tax ma war a wax ci moom parce que ñun ñëpp mën nañoo d'accord ni wax dëgg yàlla waa nag du suñu adversaire parce que koo xam ne déglu leen li ma leen di wax de parce que acharnement mooy singli mooy singli du loolu nga wax singli waa mais booy singli nit kay day am lu mu la yàqal yow koo xam ne élection yi mu wax yëpp ni ñu ko demal wuti parrainage mënta am parrainage élection yi mu bëggoon a dem yëpp mënta am parenage mais ku am mënta am parenage te ña amoon parenage déglu li ma leen di wax de pour wan leen di kooku il représente absolument rien maanaam moom dañuy dem élection candidat yëpp départandoo di wut parrainage moom mënta am parrainage mais même ña amoon parrainage dañoo dem am zéro virgule kon moom mu am mënta am parrainage bu demoon lu muy am est-ce que dégg ngeen wax ji est-ce que dégg ngeen wax ji dama ne dañuy dem élection moom muy dem wuti parrainage ak i moroomam mënta am parrainage ci élection yu bari mësta bokk élection parce que parrainage la mënta jàll mais ña mënoon a jàll parenage bañ demee élection zéro virgule lañ am waaw moom mi mënta jàll parrainage bu demoon élection kon lu muy am kooku représenté wu lu bëri ba ñuy acharné wu ci moom yàqaluñu dara parce que il ne représente absolument rien man bi ñu ko jàppee mu nekk Tamba mu nekk Kolda man damaa toog di ñaan Tamba la nekkoon may ñaan may ñaan pour ñu bàyyi ko xam nga lu ma doon bañ comme moom élection yi fi am yëpp day wuti parrainage du am ba ca fin ba du bokk mu wër di wax fépp ni moom bu ñu ko bàyyoon mu bokk day jaal day day day day day gañe léegi élection yi bu ñëw rek bu ñu ko nee wutal parrainage du am ba du bokk. bii élection bu ñu ko jàppee kon dañ koy may prétexte moo taxoon man ma bëgg mu bokk alhamdulilah bokk na non seulement bokk na waaye ma nga ca ab coalition sax boo xam si moom ñeneen a fa nekk kon coalition war naa am doole maanaam bu dee am na doole ak ñeneen ñi ñëw ñëpp ñu boole seen doole kon coalition boobu élection yii nu jëm dafa war a wane doole ndaxte moom ma nga fa mais nag leen ba le 17 novembre incha allah ci ngeen di xam ne lépp dëgg la ji doo dara et puis dégg naa ko démb ci conférence de presse am xaw moom li mu war a def mooy bu amee ay mbokk moom it dañ ko war a wax ni alal jooju muy wax ne am na ko depuis des années et des années na ci na ci comp dem wuti formation dem ñu jàngalaat ko mu jàngaat tuuti yokk xam-xam maanaam xam-xamam moo néew boo ko déggee muy wax ci niveau bi muy waxee dangay xam ni kii ndeysaan niveau bi mu nekk dafa faible démb maa ngi ko dégg mu naan un pôle d'avocat on di dit pas un pôle d'avocats avocat du nu pôle c'est un pool un pool d'avocats mu ne un pôle d'avocats xool c'est-à-dire xàmmewul koo xam ne xàmmewoo pôle ak pool maanaam kooku niveau boobu ñun ñu taxaw naan dañ koy tontu xam nga loolu affaire yabaate la ko voilà donc euh, boo bëggee dëgg-dëgg daal il ne représente absolument rien il ne représente absolument rien il fait de l'agitation xam nga moom dafa jàpp ni Ousmane Sonko li ko may doole mooy leen ko doon tëj ak tijj xam nga lu fàtte Ousmane Sonko du looloo ko may doole de xam Ousmane Sonko la ko may doole du tëj ak tijj bi au contraire loolu dafa ñëw firndeel li Sénégalais yi gëm ci moom Ousmane Sonko daf nuy bërët ci politique wane ne man sama politique dama koy lal ci xam-xam damay bind ay livres damay dénoncer ay situation ba noppi di joxe ay firnde di dem ci télé yi di wane ne il est compétent léegi sénégalais di ko identifier di wax ne mais regardez ce jeune la mais il est bon maanaam dafa wane boppam par rapport à sa compétence le régime bi gis ni kii non seulement mi ngi wane compétence mais mi ngi wane éthique mi ngi wane mi ngi wane patriotisme ñoo ñu ni kii buñ ko bàyyee mu dem nar na convaincre peuple bi kon nañ ko commencé kar nañ ko commencé kar pour du dem kar yooyu ñu ko doon kar nag pour du dem muy rëcc di di di di mbëkkanteeg ñoom sénégalais yi di may kii ñun nañ ko dooleel may may ko doole nañ topp ci ginnaawam mais Bougane moom dañu bëreet rek jaayu reewande moom jaayu leneen de dañu bëreet di jaay reewande kon nag kooku du sunu adversaire cest à que ku koy digal daal nee ko yoon wi Ousmane Sonko jaar ba yegg fi mu àgg nii wuute na lool ak li muy def waaw sol say chemise yóbbu la comme ni ko Sonko daan defe ak sóor sa euh, casquette visé ko ba mu saf di sonko sonkul ku yaakaar ne loolu moo lay may doole dangay nax sa bopp dama ku koy digal nee ko na bàyyi sonko sonkolu bi te tracé yoonu boppam dem mais tant que mi ngi sonko sonkolu lu sonko def mu jéem ko def dama la du dem lii mooy dëgg ñun on a rien contre lui attention nous som en démocratie ñun li ñu bëgg et sonko laa di sonko dafa bëgg opposition bu am doole na dem opposé wu ñu bàyyi ko mu opposé wu mu demander à à marcher demander à faire des sitting dem woo ay mboolam dégg naa ko mu naan bi ma génnee mbooloo mu bari di ma tàllalay loxo ban mbooloo mu baree ko tàllal loxo mu ne bi mu génnee ci prison bi mbooloo mu baree may tàllal loxo ban mbooloo xanaa dans sa donc amul benn mbooloo bu ko tàllal loxo moom li muy rêvé mooy li Ousmane Sonko amoon ci opposition bi loolu lay rêvé loolu nag ku koy digal. nee ko liggéey moo koy maye daa am jaar-jaar bu Sonko am moo tax mu amoon mbooloo moom kon su bëggee am loolu moom nee leen ko mu dem liggéeyi te bàyyi reewande gi reewandeem gi jëmul fen ci kaso bu dong lay mujj. merci beaucoup monsieur may may ko may ko fële woy may leen ko rek dinaa dina ñëw ci yëpp incha allah chef. Il y a un lycéen. Donc, euh, rapidement, M. Albert Yaye de Sans Limite. S'il est là. Alaykoum salam. Voilà, c'est mon première question, euh, M. Damboy. mooy ci wàllu Dakar Arena. waaw. bëri na ci candidat wala sax Sénégal yu bari xamuñu ko dara. waaw nee na Dakar Arena da ngeen ko loué pour fayu leen est-ce que mën nga ci indi ay leeral. deuxième question bi mooy Amadou Ba. bi nga xam ne ko sànq nee na dañ leen a dénk réew mi waaye réew mi ñu leen dénk mënu leen ko dénk ak wax ci nga xam ne moom a nekk au pouvoir mais en même temps a nekk ci opposition mais est ce que mën ngeen bàyyi wax te dem liggéey bi mooy ci wàllu changement ndax gis nañu Doura Baldé ak Mame Boye Diao ndax Doura Baldé sax mu nekk wax ngeen ko lan ngeen mën a nangu tey jii ñu mel

coow loolu dégg naa ko ñu bind ko ci réseaux sociaux yi wax ne Dakar Arena dañ koo aal waa Pastef parce que Dakar Arena euh, euh, waa Sojib dañ koy loué mais loué wuñ ko Pastef xam nga Sénégal mooy réew moo xam ne gars yi lu leen neex la ñuy wax ci loo xam ne ci seen xalaati bopp rek lañ koy wax ci seen waxi bopp yoo xam ne amul fenn fu ñu ko teg fa ma toog à l'époque ma ni regarde moi ces mensonges réew mi. dafa soppeeku rupture moo fi am fii amul kenn koo xam ni man maay directeur général bu SOGIP SOGIP mooy gérer l'ensemble des infrastructures yi ma leen wax sànq ni mën naa andi retour sur investissement te Dakar Arena daf ci bokk parce que xaalis bu bari la ci état bu Sénégal def Dakar Arena boobu képp kuy sénégalais yow ak man. ak président Ousmane Sonko ak euh, ak premier ministre Ousmane Sonko président de PASTEF et le président de la République Bassirou Diomaye fay ak koo mën a doon ñun ñëpp ñoo ci yem parce que alalu Sénégal lañ ko tabaxee kon ku taxaw ba koo jël da ngay ñëw ñu wax la yan condition lañ koy joxe événement yëpp bokkul nañ koy joxe PASTEF biñ ko soxlaa danoo jaar fi ñëpp war a jaar man heureusement parce que man tout ce qui est mise euh, exploitation. tout ce qui est location des infrastructures man du ci dugg dafa am directeur bu ko yore la directrice de lexploitation moom ngay adressé correspondance ne ko damaa soxla telle infrastructure muy centre des expositions muy Dakar Arena muy le marché d' intérêt national mu la gare des gros porteurs loo ci soxla da nga naan ko lii la soxla bindu ko bu dee yi SEMIC di gérer SEMIC moo koy gérer bu dee ñun li nga xam si ñun ñoo koy gérer ñun euh, waa SOGIP directement ñu à travers la direction moom ngay bind mu jox la ko. man dugguma sax far parce que tout est normé dafa am ay normes pour ñu jox la ko par mètre carré lañ koy loué ñu calculer la par rapport ak nombre de jour yi nga bëgg ak temps bi nga fa war a def ak lang nga fa war a def fa ñëpp di jaar fa la waa Pastef jaar ñu loué leen ko dañ leen koo loué dañ leen a loué infrastructure de président de Pastef Ousmane Sonko am na ko ma rapporté ni nee na seen aréna bi dafa cher <laughs> mais dafa fay. firnde baa ngi ni contrat baa ngi nii dinaa ñëw contrat baa ngi nii contrat bi nga xam ni moom lañ leen loué Dakar Arena ca laa jëm bu leen yàkkamti la contrat est la soma paree dama leen jox facture bu leen yàkkamti daam mbooj la ay leer yaa ngi dégg contrat baa ngi nii mën naa leen ko jox ngeen photocopier contrat bi nga xam ni moom la Sojib loué Dakar Arena waa Pastef est-ce que leer na contrat baa ngi nii man euh, mi ngi nii comme man dama demoon mission gis ngeen ko ça a été signé par le secrétaire général parce que man nekkuma fi woon maintenant facture baa ngi nii la facture est là PASTEF a payé dix-huit million sept cent cinquante mille dix-huit million sept cent cinquante mille moom la moom lañ fay est-ce que leer na facture baa ngi nii c'est dans nos livres moom la fay teg ca déglul de parce que bu ñu lay loué infrastructure bi da ngay joxe caution costion ba ils ont déposé la costion en dehors des dix huit millions sept cent cinquante mille costion bi démb la ma directrice bi wax ne ma léegi def nañ inspection yëpp ba pare gis nañ ni yàqu ñu fa dara ma ne ko non waa Pastef du ñu yàq dara parce que danoo yaru mu ne man parce que costion bi dañuy xool ndax di nga fa yàq dara lii location bi la mais soo fa yàqee dara ci sa caution la ñuy jël defar ko. mu ne ma def nañ inspection technique yëpp gis nañ ne yàquñu fa chaise defuñu fa dara tout est en place dañ leen di delloo seen chèque chèque bi ñu déposé woon pour seen caution dañ leen koy delloo parce que yàquñu fa dara mais 18 millions 750 mille moom dugg na ci keesu SOGIP est-ce que leer na kon ñi wax loolu waxuñu dëgg réew mi nag ku nekk dafa yore làmmiñam di wax ñun on considère que Dakar Arena képp ku ko soxla mën na la koo jox. xam nga bu njëkk Macky Sall xalaatoon ngeen yéen Macky Sall jël euh, Dakar Arena jox ko opposition est-ce que xalaatoon ngeen loolu léegi man fii laa koy déclaré déglu leen ma de li may bëgg a wax fii laa koy déclaré opposition bi ku ci bëgg dakaar Arena wala nga bëgg la centre des expositions ndaxte foofaa foo foofaat am na espace yoo parce que Dakar Arena moom jàpp naa ne diis na pour ñoom mais buñ bu fekkee Dakar Arena mille place yi mun ñu ko feesal bu dee mun ñu ko feesal 15000 places yi. man mën naa jox instruction sama directeur technique et le directeur de l'exploitation pour ñu xaajal leen ko pour ñu ñëw def fa seen meeting est-ce que dégg ngeen li ma leen di wax mën na leen koo xaajal bu ñu leen ko xaajalee wàññil leen ko parce que bu ñu leen ko xaajalee mën na leen koo wàññil xaajal leen ko aussi bu ko defee ñu ñëw def fa seen meeting ñoom opposition bi yëpp képp ku ci saisir la SOGIP ñu jox la dakaar Dakar naa nga ñëw def fa sa bu ko defee nga ñëw feesal ko wala nga feesal ko nu ëpp sax ne ko waa Pastef feesale ku ci bëgg beneen infrastructure tamit soo ñëwee jox la ko dama ni réew mi soppeeku na dama bëgg sénégalais yi xam ne réew mi soppeeku na jaay doole bi jeex na li fi Macky Sall doon def jeex na li fi ab Ablaye Wade doon def jeex na réew mi dafa nekk ci yeneen loxo dafa nekk ci loxo président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu dénk ko premier ministre mënuñu yamale leen sénégalais yëpp réew mi soppeeku na ñiy nelaw jóg leen ngeen yeewu xam ne réew mi soppeeku na foofu la réew mi toll pour mu leer donc ñun nekkuñ ci caaxaan yooyu Dakar Arena man mii bu ma ko dee loué damay fay gis nga man yaa yaa yaa deux mois samay promotionnaire yoo xam maa ñoom ñoo nekk ndaw université dañoo bëggoon def benn yendu xamuñu fu ñu koy defee wala ñu nekk ci discussion man leen mais ñëw leen def ko stade Ablaye Wade stade Abdoulaye Wade y a les espaces VIP ay espace restauration y a plein de choses euh,